da ngaa si jigéen jiñ ko dafa yow say jabar dañuy muur ko muur mel ni mel ni muur dañ koy tere ni ko yow salafiste nga ni ko yow rebelle nga ni ko yow ab yàq tànkat nga di nga di yàq deram lépp pour wut rek ak fu nu jafal malheureusement malheureusement yàlla moo ay ci kootu buur ndaxte actuellement ñetti ñetti mbir yi ñuy toppee Ousmane Sonko yëpp nërmeelu na benn mënu ko cee tee nekk candidat parce mu ci mbirum Mame Mbaye Niang il faut ñu daan ko lu ëpp juróom-benn weer ñoom juróom-benn merci beaucoup bu ko defee mais dossier bi tamit dossier Adji Sarr bi bañ koy àtte fekkewu ko loi bi moo ni buñ la attee te fekk woo ko bis buñ la jàppee rek lan la atte woon nërmeelu na kon nag beneen bu mujj kon attewaat moo fi des te ñoom xam na ne amatuñ temps pour attewaat beneen bi nag mooy liñ ko mujj a jàppe moom kenn atte ko ci donc Ousmane Sonko kenn mënu koo tee jël ay fiche de parrainage am su fekkee ten teg nañ ko ci yoon mhm. su jëlul ay fiche de parrainage am mooy dañ ko bëgg jaay doole kon nag na Sénégal yëpp taxaw ci ginnaaw Ousmane Sonko mille détenus politiques ngeen di dégg Ousmane Sonko tax mu jàpp. kon nañu wax nañ bàyyi ñëpp bàyyi Ousmane Sonko mu ngi fi gërëm waajal candidature am 2024 incha allah sénégalais fam sant yëpp dafa critique tey est-ce que jural nañu njàqare a koy jàppal daal. mais nañu njàqare moo tax Ousmane Sonko li muy dund sénégalais rek ñoom mm-hmm. parce que koo xam ne sénégalais yi koo xotti xolam moo na ca moom Macky Sall ni par force yéen ki ngeen bëgg yéen sénégalais dafa nekk candidat kooku coxorte gu métti la mais jaay doole gu métti la kon nag Ousmane Sonko lañ ko teg jaaduwul dafa mel ni Ousmane Sonko du sénégalais comme sénégalais yëpp parce que Macky bu ñu ko jaayoon doole tey du nekk candidat bay jiite réew te moom amul mbooloo mi toog Ousmane Sonko genn wàllu mbooloo Ousmane Sonko sax amu ko kon bu ñu ko jaayoon doole du nekk candidat Ousmane Sonko depuis 2021 ba lu ne ñu koy teg ci kaw te teewul sénégalais yi ñu topp ci ginnaaw kon nag mu neex mu naqari sénégalais yi Ousmane Sonko lañ bëgg tey moom lañ bëgg ëllëg lee muy dund nag metti nañu li muy dund metti nañu ñun ñëpp metti nañu parce que man fu ma waxee ak médecin ba pare sama xol tooy wóor ma ni Ousmane Sonko mii ñu ngi ci danger fi mu toll nii à tout moment mun nañ ñoo annoncer une mauvaise nouvelle te loolu garaaw a garaaw la te Macky boo fi seetaanee ba li ñëpp di tiit ak tiit am musiba dinañ am ci réew mi képp ku yéene Macky Sall jàmm na ne ko na bàyyi Ousmane Sonko